lii boo xëyee na nga ko xool te nga woon ko sa yaay ku ko xool doo faatu ci at mi waaw te suba la at mu bees mi di commencé suba la benn fan ci at mu bees mi te su borom fii ba tam xarit di fukki fan i lay tànn ñuy faatu ak ñuy fekk déwén na ko xool te nga yónnee ko sa yaay baax na.